c'est moins de cinquante pour cent la ñu amoon quarante wante njort naa ni comme ko xale yi léeg-léeg ñu biddanti xëy na bu ngoon si jotee dina gën a jugaat tuuti li tax ñu mën a jàngat euh, faiblesse boobu nag bokk na ci campagne bu bon bi nga xam ne leader yi def nañ ko ndaxte camp li ñun ñu buggoon a dégg ci liy defar Sénégal lu ci bari ci discours yi dafa mujj a tourné ci waxu violence ay acte violence loolu ragal loo nañ ñenn ñi jéppiloo na tax tamit ñeneen ñi pour ñu bañ a génn parce que bu yaa génn ñun ñu ñëpp yem wante ñun ñëpp yemuñu tey du bisu politique tey bisu woote jàmm la ku nekk ci sa xool ak li nga bëgg xam nga ko na nga dugg voté ndànk dem te xam ne tamit euh, ku nekk mën nga sa campagne mais yàlla tamit am na parce que Macky Sall bi muy jël réew mi sondage yu njëkk yi quatre premiers yi bokku ci parce que ñu ngi doon wax naan Ablaye Wade Idrissa Seck n'est-ce pas Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng mais bi mu la kon lu yàlla mën di def bu ngoonee rek na ko ku nekk nangu ken bañ a saaga kenn nga sama xaalis wala war nañ ma xam leen ni mbooloo mi limi bari bari yàlla tamit dafay dogal mais bu ñu demee tamit ba fal nit ku ñu fal fu mu bok, bokk ak lu mu mënti doon gox ba mu mënti dëkk nañu xam ne moo teewal gox boobu mu député leader li may ñaan mooy assemblée bi ñu jëm bu kenn ni man maay député Moussa Ndiaye wala maay député Yacine Nangam na nga nekk un député du peuple nanga nga taxawal peuple bi même liste bi la fal buy défendre lu impopulaire na nga ko bañ parce que ñun dañoo war a teewal askan wi askan wi nag sonn na parce que gis nañu li fi am yëpp du ma ci dugaat muy niroog politique wante ku nekk bu demee assemblée nga bokk pouvoir comme nga bokk opposition li may ñaan mooy bis buy jël kaddu nañu sentir ni un vrai député du peuple le Kadou. c'est te Sénégal quest la waxal te li ko le kanam kese la waxal promotion leader na jeex assemblée ku la parole dal bu waxee rek nañu sentir ni dëkkam mu mi mu wax. tout d'abord euh, de remercier l'ensemble des électeurs je viens d'accomplir ma mission citoyenne je viens même de voter donc. Euh, j'ai remarqué qu'il y a une faible taux de il y a une faible participation au niveau de l'électorat, ce qui l'explique. Donc, y compris même euh, les mauvais discours, n'est-ce pas, tendant, euh, discours de haine, n'est-ce pas, les scènes de violence, les paroles de violence. Donc le peuple n'a pas besoin de ça. Donc je crois avoir, pour cette fois-ci, de véritables députés du peuple. Des députés qui oublieront leur couleur politique, leur responsable politique À chaque fois qu'ils prendront la parole à l'Assemblée, nous sentirons qu'ils parlent pour leur département et pour le peuple on n'a plus besoin d'une assemblée qui fait la promotion d'un leader politique. Nous avions besoin de véritables députés au nom du peuple et pour le peuple. Nous avions remarqué pas mal de difficultés. L'Assemblée ne, doit pas servir de blocage. L'Assemblée ne doit pas... On ne doit pas sentir un contre-pouvoir à 100% à l'Assemblée. Nous devons sentir une Assemblée qui, auprès du pouvoir, participe à développer notre cher pays. Donc, vive les députés du peuple, vive les vrais députés du peuple. Et nous demandons aux jeunes aussi dans l'après-midi de venir voter. Parce que le taux de participation que nous avions vu n'a pas encore dépassé 25%. C'est normal. Les élections législatives ne mobilisent pas comme les présidentielles et les locales. La fois passée, on avait 46%, mais faisons le tout au moins d'avoir plus. Je remercie tout le monde, je remercie les journalistes. Vive la paix et vive le Sénégal. Merci beaucoup.